sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey tawa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 rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil aalamiina wasalaatu wasalaamu ala almabuuthi rahmatan lil aalamiin sayyidina muhammadin il makiin wa ala aalihi wa ashaabihi ajmaina ixwata al imaani wal islaami wal ihsaani wal iraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki M-Media Group Nuuru Daarayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu di leen ziyaare di leen dokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungul ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy rëcc rëcc di ziyaari kilifa ak jotaay rek muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko ñaan mu jot lu ñu suñu nuyoo boobu mboolem mbokk yi ñu bokkal liggéey bu sedd bii mu jot lu ñu ko ñëpp waaw su ko defee kon tey suñu fatwa bi rek ñu di yem cee ñëw xool li nga xam ne lii moo fi jotoroon ci ay laaj ñu jéem ko faram fàcce tey ñaari laaj yi fi am laaj bi ci jëkk sëñ Moussa moo ko fi yónnee sëñ Moussa ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko xamal ne kon namm nañ ko gën nañ ko dégg ci groupe bi baaraam waaw moom day laaj ci ki ñëw ci jullik mbooloo gi te julleegut ñaari rakkay fajar te fekk ñuy julli jullik suba maanaam jullik farata gi mu ne moom kooku day julli ñaari rakkay fajar yi ànd moom dong bu paree doog a julli julli farata gi wala day dugg ci julli mbooloo gi julli farata ka lan la ci war a def kooku li muy def mooy bu ñëwee ci julli mbooloo gi day ànd ak imaam julli julli farata ga su jullee julli farata ga nag léegi euh, mu des ñaari rakkay fajar ñaari rakkay fajar yooyu nag kon dañuy jàpp ne moom maanaam raw na ko faat na ko te maanaam liñ ci gën a jàpp daal ngir werante bañ a dañ ne ñaari rakkay fajar bu la rawee da ngay xaar ba jant bi génn ba la daga maanaam ba ñu mën a naafi la maanaam ba waxtu la jot bu jant bi fenkee ba waxtu naafila jot ne ne may nañ la maanaam ñaari rakkaay fajar yooyu la raween nga fay ko euh, naafila yi nag muy sunna yi ñaari rakkaay fajar dongul la ci jàngalekat fiq yi ne bu la rawee mën ngaa xaar bu bët set ba jant bi yëkkati ko bañ mën a la nga fay ko waaye yeneen su yi moom bu la rawee doo ko fay maanaam ngir ñu bañ a dugg ci werante daal boo boo ñëwee fekk imam bi julli farata gi da ngay ànd ak moom soo ànd moom xaar ba bët set nag ba jant bi yëkkatiku bañ mën a naafi la ñaari rakkay fajar yooyu nga mën koo fay boo gisee ma ne ngir ñu bañ a werante dafa am borom xam yoo xam ne ne bu bu la loolu dalee man nga su ànd imam bi ba pare su imam ji sëlmare rek nga daal di yow jóg julli sa ñaari rakkay fajar teg ko ci noonu waaye li ma la wax na le mooy li nga xam ne daal moom la ñu gën a jàpp ngir ñu bañ a werante daal dugg ci werante wa dane da xaar su bët setee maanaam nga fay ñaari rakkaay yow su la neexee su la neexee it mën nga ko bañ a fay ndax sunna la waaw kon daal loolu lañ ciy jàpp waaw beneen laa bi ci topp sëñ Fallou Gueye moo ko fi yónnee moom itam sëñ falu ñoo ngi bu baax a baax moom itam Euh, moom day laaj ci wàllu asaka laaj bi mu laajit mooy ay mbéy lan moo di nisaabam maanaam dugub ak gerte waaye tamit ku ci am nisaab maanaam lu ñu war a génne asaka maanaam lu ñu koy génnee asakaay dugub gerte daal ci ni ma moom lay laaj lu toll nan lay doon ñu war caa génne asaka waaye ak nan lañ koy génnee ak kañ lañu ko war a génne waaw asaka moom euh, bu dee ni xaalis la daa am lu muy toll euh, asaka dog caa war bu dee ni ak jur la itam daa am nu ñu nu mu war a toll asaka dog caa war waaye bu dee dugub la ak gerte yi dafa war a am nu mu tollu asaka dog caa war loolu la ñuy wax nisaab su ko defee bu dee ci wàllu mbéy mi muy laaj nii am nisaabam maanaam li bu dee dugub la faw mu mat juróom-ñaari barigo ak juróom fukki kilo azaga doog caa war a génn bu dee gerte la am nisaabam maanaam dafay war a mat ñetti barigo ak juróom ñaar fukki kilo ak juróom bu dee dugub la daal na mat 750 kilo gramme bu dee gerte la mu mat 375 kilo gramme su ko defee ñaari lim yooyu daal bu dee dugub la ku ca am juróom ñaari barigo ya ak genn wàll war nga caa génne asakaam bu dee gerte la ku ca am ñetti barigo ak juróom-ñaar fukki kilo ak juróom war nga caa génne asaka niñ koy génne nag mooy euh, bu dee dugub la am ko ko mu ñu war caa génne asaka euh, bu dee nii ndax nag bu dee mbay la moom comme waxtu bi mu laaj kañ lañ ko war a génnee alxuraan dafa wax ne wa aatu xaqahu yowma xisaabihi bu dee mbay la moom jamono jam koy góob rek nga daal di war a génne asaka bu dee dugub boo ko góobee danga ko war a daal di xayma bu matee nisaab bi nga daal di génne asaka ja bu dee gerte la boo ko déqee xam ne mat na lu ñu war a génne asaka a daal di génne asaka ja ndax ne ne wa aatu xaqahu yawma xisaab li ñu koy génnee nag bu dee dugub la yow xool nga ba xam ne lii asaka mat na lu ñu war a génne asaka bu ne ni da ko daal di bojj dangay ngay natt rek fukki kilo yoo natt génn benn bu mu di asaka bu fekkee ne da nga koo bojj soo ko bojjagut da nga koy def ay takk bu dee ay benn takk la benn takk fukki takk yoo takk génne benn takk bu dee ay sabaar nga ko def fukki sabaar yoo wàññ génn benn sabaar ba teg bu dee da nga koo itam nga fexe ba natt ko mu doon fukki meetar nga xàjji benn meetar léegi nag di leer bu ko defee leer gi ngay leer mook benn meetar ba nga xàjji ne maanaam ñooy maasaloo maanaam ñooy yem maanaam ñooy tolloo ci ab guddaay lu leer gi njoole rek noonu la mètre bi war a njoole su ko defee loolee nga ber mu di mètre maanaam moo doon mooy doon asaka ji bu dee gerte gi itam nga natt ko fukki kilo yu nekk nga génnee ak kilo mu doon asakaam maanaam noonu mooy nga xam ne ni lañ koy génnee bu fekkee ni ci taw bi nga ko béy ba mu ñor kon asakaay dugub ak gerte moom ñoo bokk waxtu wuñ koy war a génnee waaye tam ñoo bokk nuñ leen di génnee comme li ma wax fee rek bu fekkee nag da nga koo bay ci taw bi ba mu ñor nga xam ne lépp taw bee ko roose ngay def noonu di génne fukk yu ne nga génne benn su fekkee ni nag maanaam da nga doon roose maanaam di root ci robinet di ko roose wala ngay wëgg ci teen di ko roosee ba dugub ja ñor ak gerte ga su boobaa la nga doon génne bu dee ni kilo la da ngay génne liibar bu def takk la da koy xaaj bu def sabara da koy def benn takk noonu daal lañ koy génnee ñaari anam yooyu la waaw kon loolu daal mooy li nga xam ne man nañ ko tënk rek ci wàllu asakaay dugub ak gerte kon yàlla delloo defal tawfiq di jooy Seydou Nabi daa